mbokki Leewtoo ñu leen di nuyu bu baax leen euh, ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen leen baalu ak baax leen baal ak tey nag dañoo ñëw fii ci Lamsar am ku ñu seeti nitu làmb la ànd ak yàgg maar ak nga xam ne moom mooy euh, soxna Aïcha Faye Fayeen boobu ñu ngi koy nuyu bu baax waaye nuyu Rose ak chauffeur bi Momo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey dañuy ñëw waxtaane làmb ak li ci biiram ñu ngi fii ci Lamsar mbokki Leewtoo ñu dem ba ci biir xooli ku ñu seet si mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek eh, ñëw nañu fii ci Lamsar dugg ci biir kër gi nag toog ak ki nga xam ne moom lañuy ñu war a waxtaanal muy Max Mbargane eh, man Max Mbargane rek laa xam xëy xaw naa beneen tur boobu dina ko leeral eh, Père Max ñu ngi maa ngi lay fay biram waaw li may njëkkee yow rek mooy Max Mbargane bi muy tur bi wala Maguette Mbengue bi. non Maguette Mbengue laa tudd Max Mbargane moom dàkkantal la rek surnom bëri nañu ko am. man it ñu may dàkkantale Max Mbargaan mais Maguette Mbengue laa tudd dëkk Jolof di Jolof Jolof bu mag. Mhm. ndeysaan léegi euh, Père Max lu ñuy euh, waxee yow rek mooy waxtaanee làmb ak li ci biiram. Mhm. làmb gis nañ tolluwaayam actuellement euh, saison bi xaw naa xat tuuti koor gi dugg na ci biir am na yeneen yi ci xew ak ñoom seen. waaw xam nga saison bi ni mu tëddee moom li ma naan montre yu baax yëpp boo ko heure maanaam ñuy dund làmb ñëpp sóoroon nañu ne saison bee ñu génn du mel ni saison bii loolu ñëpp xamoon dañ ko ndax li ci laxasoon moo bari élection yi euh, koor gi coupe d'Afrique bi moo tax nit ñi sooroon nañ ne combat yi du bëri te calcul boobu nag promoteurs yi dañ koy def d'ailleurs moo tax ñeenti weer a ngi ci ginnaaw rek date yëpp jël nañ ko mois de juin ba juillet mënatoo ci am samedi wala dimanche wala jour férié promoteur def nañ calcul boobu moo tax sóoroon nañu ne combat yi na meloon daaw ren mënu ne mel mais nag li am solo mooy gis nañ ne combat yi bëri na ndax promoteur yi ñu ngi euh, def li ñu man amuñu chance pour mën a bari ren. waaw xam nga Balla Gaye 2 bi mu daanee Baye Mandione Euh, war a bàyyi ñu bëri ne non war na mën a continuer ndax 45 ans ba léegi dese na doole ma ne waaw loolu ba tey xel nangu na ko mais problème mu làmb du loolu du loolu 45 ans loo ci amul mañ na xëy na dudul sa chance mais bu doon sa chance loo ci war a am di ko am mais problème mu làmb mooy mbëri ñoo ëpp journée yi parce que cent cinquante 152 écuries am na te loolu daaw la wóor na mën ne am na ñeneen ñu amaat ay récépissé te mbër mu écrit bu saa mbër ne ñu fay bëri matuñu fin kon mbër yee ëpp journée yi loolu mooy problème mu làmb li ëpp ci mbër yi bëriwuñu euh, loolu nag moo waral année blanche mënul ñàkk bu njëkk bopp teel war daana bëri ñaari saison ñaari combat ci benn saison mais ay at a ngi ni benn combat rek ngay mën a bëre promoteurs yi dañ daan tegale tëgg saison yu journée yu bëree bëri léegi loolu dootoo ko man léegi nag bu 4000 licenciés amee ñuy bëri matuñu 600 mais fu làmb jëm 3000 ak quelques yooyu bu mu bëriwul ëllëg lu ñuy doon loolu mooy problème mu làmb d'ailleurs yàgg naa cee communiqué euh, du na ngeen ni waa Leewtoo sax mais Leewtoo bi ñu ñëwee bokk nañ ci ñu bëggoon a xeex loolu joxaat làmb valeur bi mu amaatoon ndax façon bu ñu ko defee mooy journée bu ne dañuy imposer 20 lutteurs. vingt yu bëre contre promoteur yeneen yi ko deful ndax ñoom it difficilement la ñuy organiser yenn sponsors yi daw nañu euh, da ngay tëgg ngir war a tëgg rek contribuer ci développement wu dëkk bi rawatina làmb mais mënuñ cee gagné dara kon moo lay làmb am na problème làmb dafa am problème mbër yu ndaw yi xam nga li ci ne daanaka ñooy tëgg seen bopp. danga may naa temps de billet laa mën a jaay naa la fay nangam am na promoteur yoo xam ne bu ñu la joxee billet dañ lay wax du am retour mais waxoon naa ko léegi contre ma promoteur yi ndax ni ñuy organiser dafa métti te yenn sponsors yi daw nañu kon làmb am na problème waaw mais ki nga xam ne am na chance chaque année mu bëree mën naa bañ a gis loolu mais bu njëkk ba da ngay dem ba sa mbër jeex ñu ne non kii ci fin de carrière la jarutul bureau bii doon xale. am doole mën a bëre kenn du la bëreloo soo xëy na amul mbooloo waaye yow mi yaakaar làmb nag te bërewoo mais day métti ci yow loolu mooy problème làmb biram écrit yu bëri bëriwuñu mbër yaa ngi fa bëriwuñu da ngay benn booy ñu koy bërelee toujours ndax daa am mbooloo bu daaneeg bu daanoo ginnaaw suba ñu waxaale ko joxaat ko avance waa léegi nag ñeneen ñi bëriwul nu ñuy def te yaakaar làmb loolu mooy problème mu làmb waaw. loolu moo moo favoriser mbër yu bëri di tukki toog fa. waa am nañuy tukki sax toog mais daal li wér li gën a dal xel mooy tukki bi sax boo tàmmul fii liggéey boo tukkee boo demee foofa doo liggéey da ngay tàmm liggéey fii ndax foofaa gën a métti ndax bitim réew bopp sa bopp la xam nga wala fi léeg-léeg ñu leen na kaañu añi kaañu reer Sénégal la am kon foofu bopp sa bopp la liggéey bi nañ ko commencé fii ku am chance su tukki tukki mais mag wala fi da naan wax làmb du métier teglaay la da ngay am sa métier su la métier mi yoree sax nga bàyyi làmb ji boo demee ba làmb ji man laa yorit bu ko defee nga bañ a perte mais toog di yaakaar làmb te bëriwoo euh, boo amul li nga yaakaar ci làmb pertement lay doon ndax at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar dimanche boo toog bëriwoo ko wala samedi yaa ngi perte kon mbër bëree rek ko jig hmm. euh, ñu gis ne def fois benn làmb ñaar ñett feggaloo am benn bés yu ñu bokk ñetti làmb war a tëgg samedi wala dimanche. waaw loolu euh, le président Alioune Sarr mos nañu woo mooy rencontre yi muy def xam nga dañ naa def bu làmb tëjee ba war a tijji ñu woo kuréel yi ngànk làmb yëpp mais gis nañ bu naan dajaloo di réew réunion léeg-léeg coo fay am ba njariñ du fa génn léegi nag ñu mujj changé euh, saawu làmb ji tëjee balaa tëjji ñu woo kuréel gu ne CNG rencontre ñu waxtaan. li nga xalaat ne moo yokk làmb ak li nga xam ne dugal nañ ko ci làmb tax ala àndoo ci nga xalaat ne day yàq bu ko defee ñu seetlu dindi loolu mais bi mu rencontré ménager yi waxtaan naa fa lu mel noonu ma ne ko est-ce que duñ yokk leen euh, nombre de combats yi wàññi nombre d'accompagnateurs yi président Alioune Sarr ma loolu du problème loolu du régler làmb li koy régler mooy làmb def ni football di def euh, su Pikine tëggee Tëngéej tëgg Thiès tëgg biir dakaar tëgg comme ni championnat yi di mel su boobaa mën naa tane mais yokk combat yi loolu du régler problème mu làmb kon bu ñu demee ba benn journée ñiy tëgg arène nationale ñiy tëgg Ibamar euh, bu dul rivalité làmb ciy gagné ndax rivalité nag ak coow làmb soxlawul loolu ndax làmb su melee nii mu mel ñëpp ci war a dugal seen loxo xàccee ndoo dóorandoo loolu la làmb soxla biram loolu làmb moo ciy gagné bu ñu sañoon dimanche bu jot làmb yu bëri tëggandoo au moins li ëpp ci mbër yu bëre ndax mbër yi ëpp journée yi biram Max Barga ancien gloire yi ancien lutteur yi fii lutteur en activité yi fii mu xaw a jafe tuuti sax pour def xajaloo bi pour xam kanay kan waa xam nga génn kuréel la woon mooy ancien gloire ñu dem ba ci biir tubaabu joor ànd ak ñoom Birahim indi mbëru démb ñi jaar ne ñee jaar na le mais ku ne gérer sa kuréel Birahim mu joon rejoindre ñoom màng ñoo àndandoo ndax kuréel yooyu mënul am ñaawoo ndax mënoon dañoo bàyyi toog mais dañoo bàyyi ne nag ni leen seen mag yi doon jàppale nañ jàppale noonu seen doom ak seen i jarbaat waaw mais ñaari kuréel yooyu ñoo amoon ancien gloire ak mbëri démb euh, te ñooñu ñëpp nag ñu ngi ne ci jàmm ji lu waay xewle ñëpp ay teewandoo kon affaire bi rafet na waaw Manga moo jiite woon bi tubaabu Jor moo jiite woon beneen kuréel bi muy mbëru démb Manga jiite les anciens gloires loolu da ñaari kuréel yooyu xam ci mbiri mbiri euh, ancien gloire yi man ci ancien gloire bokk ancien gloire yi laa bokk ñoo mànga deux mànga deux laa bokk mel ni bu tubaab mën na ne dox na parce que gis naa ñoom kat yi nga fa te gisuma leen ñuy ñëw di rejoindre ña fa gisoon daal ñuy ànd bu dul Birahim nga xam ne moom mu jot na ànd ak tubaabu joor mu jot na ànd ak mànga Euh, am na ñoom kat yi ñaan doon neewoon ci ginnaaw tubaabu joor jusuma leen ñuy ñëw ci réunion ancienne gloire kon mënu ma ne amatul xam nga man ni damay bëgg di wax lu ma xam daal ndax bëggu may tooñ. Ah, mais kuréel yooyu ce que niroowul ay kuréelu copain ay xarit yooyu. waaw mais ci gañe rek ndax ñoom amuñ ci weer lu ñu leen di fay c'était juste ku ne indi xalaatam ñu fexe làmb ji développé kon ñooñu li ñu doon def làmba ciy gañe waaw loolu xam nga bu doon ay poste la moom ay budget xëccoo man naa am xeexoo mais am na loo xam ne bu ñu la dajatu rek dangay dem toog ndax c'était juste pour làmb jëm ci kanam say doom rek ngay jàppale ak say jarbaat ak say rakk. groupement national des ménagers tolluwaayam. waaw tolluwaayam mooy euh, muy kuréel gu am solo gis naa sax nit ñi sànni xeer ne dañuy xatal duñ jël kenn dañoo xamul ndax yaata la tax yow mi nga dugg euh, ba dafay dugg Ibrahima mbay dugg Mor Fadam dugg. Birahim Ndiaye dugg euh, Masose dugg euh, Mbartin dugg xoolal ñun mu ngi lima yëpp ay mbër lañu te da ngay gis ñu toog naan noo mbëri ménager yi dañoo siis liñ dugal ci ñoo xam ne jaar nañ ci làmb mos sa takk ngéem bu bëree ëpp na fin ndax amul fu nit dina éternellement day demam yàgg rek nga bàyyi say rakk ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw kuréelu ménager yaatu nañu mais dañu ne daa am ñoo xam ne ménager rek lañuy gis soo waxee ñu ne non ñoom dañuy jël 10 pour cent defuñu dara. boo amee cinquante mbër kenn di ci bëre million ñi des di bëre ay cent mille francs seen dix pour cent di dix mille francs ngay paas taxe dem signature doo ca gagné dara mais bu demee ba mbër mi am ay million rek nga dégg ñu non ménager day signé rek jël te coono yi ngay daj yow rek ko ko xam te yenn coono yi yenn CNG guddeeg bëccëg di ci daj ay coono te tout début est difficile doo xëy rek lekk ay million coono yu métti la ñuy daj mbër yi waaw mais nag yàlla bind yemalewul ku nekk wërsëgam waaw ménage yi jànguñu est-ce que loolu am na ci impact ci seen liggéey. waaw am na ci ñu jàngul mais jàng nañu làmb am na ci ñoo xam ne mënuñoo bind seen tur mais dara réeru leen ci làmb xamal làmb rek xam règlement ëmb mbër mi boo xaatimee contrat xam li ko war ñaata nit lañ ko may lii dañ koy tere loolu moo ci am solo am na ñoo xam ne jànguñu ne mais am na xam ne dañoo jàng làmb ba màndiku. Max ñu dem euh, écurie gis nañ euh, début bi ngeen amoon euh, ak ñi nga xam ne ñooy champion. li nit xam ne Lansar tey ñu dem ba Lansar pour nga dégg fa champion yi bëri sax à part ak Quench day nekk loo xam ne dafa xaw a jafe lu waral loolu. xëy na ki koy wax dafa xamul rek ndax daaw foog la bëri na Super bëri na Tidiane na Ndoko Rolu euh, euh, wax boobu day daal di ñoom ñëpp bëri nañu daaw ren nag daaw nag combat yu ñu amoon moom duñ ko am ren. mais ñoom ñëpp bëri nañ te it nag 2008 la ñu formé Lamsaar Lamsaar dong nga mën a lim 10 mbër ñëpp di bëri grand combat loolu liggéey bu yaatu la xam nga lu ko waral mbër siiwul rek ñu topp mbër bi fàtte xale yi ñun bu mbër mi demee ndax mbëru mag en général du dundal écurie ku siiw rek na maa ngi sama ruq te ruq bi defu la li nga doon mais la ma doon wax coach yi mooy su ngeen jiitul mag sax liggéey leen ci xale yi. moo tax Lansar toujours am na relève boo xam ne ñooy téye drapeau yi mag yi nag nekk seen wet di leen jàppale waaw loolu nag dañ koy euh, sant liggéey coach yi waaw. ku nekk da ngay liggéey ba nekkal sa bopp ci kaw tey jii bu ñu doon jéem a wax tëdd fil Lansar kan la ñuy jox euh, tëdd fil. waaw xam nga tëdd fil booy seetlu ñun ma doon ko dàq dama gis yenn écrit yu ko am yëpp day am benn rivalité bu ne ci biir écrit bi di xëccoo maay P maay numéro un man laa dàqoon. waaw moo tax dama ci gis euh, lu rëy loo xamante ne nii man kontaan naa ci ni ma ci kontaanee mooy kenn du wane ne man maa maa la jiitu mbër mu mag ak mu na a am ku am bis ñëpp taxawu la ku bëre nga daan wala nga daanu boo ñëwee entraînement dañuy arrêté entraînement yi tàccu la xam ne bëre daan daf cee bokk mais daanu daf cee bokk mais gisoo mukk ñuy xëccoo maayu pie ji nga nees bi ñuy wax day wax dox du ma tëdd fiil nga ne Super Étoile mu ne du ma tëdd fil nga ne Siteu mu ne du ma tëdd fil euh, nit ñi seetaan nag ak amateur yi dund làmb mën nañ ne noo diw mooy tëdd fil diw mooy tëdd fil mais ñun daal suñu xalaat sunu slogan nga xam ne moom la ñu gëm mooy amul tëdd fil ay xarit la yu dajaloo di bëre ku ne jël wërsëgam moo tax amul benn rivalité bu ne ci biir écrit bi man nag loolu moo ma ci intéressé woon ñu ànd ñoom ñëpp doon benn ñoo xam ne mbër mu ndaw ak mu mag ñun ñëpp la ñu yemale waaw dañuy jàppale ñëpp taxawu ñëpp. situation bi tey Tidiane Faye di dund lan lay def ki nga xam ne ni mooy per Max nga yor koo xam ne tey jii saa soo demee lan saar fekk ko fa te mu nekk si ay jafe-jafe bu demee làmb di fa am ay jafe lan la situation boobu di def ci yow. waaw xam nga Tidiane euh, mooy mbër bi nga xamante ni daawu ma su ma xëy benn bés te nit laajuma ana Tidiane Faye wala ci lu ne mais làmb day dévoluer de génération en génération Tidiane mu ci làmb ji di entraîner mais. li ko waroon def yëpp def na ko ci làmb d'ailleurs ñoom ñoo téyewoon drapeau bi ba seeni xale fan leen am ci ñoom cofeel daw ñëw rejoindre écrit bi ndax ñoo fi nekkoon di jël pay di jël pay di wane seen bopp ñoom Tidiane Faye Fëgala ne ko réel Sentel Tigre ñoom ñoo téye ak nees ñoo téye drapeau super étoile ñoo téye drapeau Lamsar ba seeni xale ñëw ku ci mel ni Coen si ñoom Sita ñoom Mama Lamine ñoom pakala ñoom Tigre Sior euh, loolu mag ñi doon def moom la ñu gëm ba ñëw intégré ci écrit bi ñoom yi nag gàddu drapeau écrit Lamsar di wane seen bopp mais lamb li ma la wax léegi rek euh, xam nga xale yi juddu 90 ak ay 92 93 lamb day évoluer de génération en dangay xool palmarès yi ñi nga daan ak ñi nga bëreel nga xam ne làmb day dox te day dem ba ci biir. xale yi dañuy ñëw fekki mag ñi Tidiane foofu la toll xale la ndax Eumeu seen a mag Tidiane foofu te mooy roi des arènes li am solo rek mooy mi ngi ci takk ngemb yi entraîné rek xam ne léeg-léeg nag wërsëg lay doon luñ sa wërsëg di nga ko lekk bala ngaa génn àdduna ndax programme bu moom yàllaa ko yor mais daal mbër la mu ma kontaan ci moom mook Tigre donte kontaan naa ci yeneen mbër yi ndax ñoom Tidiane même bu saison bi tëjee ci écurie ba lay entraîné di jàppale booy yi moom gu dégg bëccëg mi ngi ci xale yi di leen taxaw ndax mais nag noonu la war a mel ndax bi ñuy sos écurie Lamsaar moom mi ngi toog ndax moom la ñu jëlee caaray indi leen fii ñu créé écurie bi te moom mën naa ne bokk na ci membre fondateur yi kon moom taxawaay boobu rek la war a taxaw Tidiane même bu demee ba ba ba bareetul xam naa ne day ñëw di coacher booy yi ndax écurie Lamsaar Tidiane fay la waaw moom ak ay ay ay moromam yi nga xam ne ñoo sosandoo écurie bi. li saison bi bëreetul mu nga am mbër boo xam ne macha allah déggaguñ ko ci saison blanche muy Siteu ak fi mu toll tey ba saison bi di waaj a jeex amul combat est-ce que yaakaaroo ne mi ngi dem ci première saison blanche am. waaw loolu euh, ñu ngi ciy am yaakaar donte bi saison bi euh, euh, di dog a jóg bëri na promoteur yu doon waxtaan ay combat am ba bu mujj waa Leewtoo waxtaan nañ ci ak Papa ba jiboo woon nañu mais li ma wax rek xam nga làmb day ànd ak calcul. parce que mënoo jël sa xaalis joxe ko xaatim contrat ne saison bi dem amoo date boo tëgg su boobaa euh, mën na la kat yaa joxe woon sa xaalis mais date bi nga waxoon bëriwoo ci su boobaa man nga perte mais waxoon naa ko léegi année blanche jombul kenn ndax du moom rek bëri na ay ténor yoo xamante ne amuñu combat ren te xalaat nañ dañoo année blanche. année blanche nag nit ñi dañ koy jàppee année blanche baatu subaab la rek mais làmb ji. xam nga saison dañ naan 2017 2018 ñaari weer lay tëj ndax day tudd ak ci même année bi kon ñaari weer rek lay tëj mais buñ ne la jëmal déwén mën nga ne kat toog at bëre woo déedéet mbari mbër jël na combat toog 4 mois wala 5 mois doo ko bëre mais imagine lamb ji nga jël nga nga jël combat juillet war koo bëre décembre ñaata weer la mais toogoo at kon ku ci jubóog promoteur ngeen xaatim contrat ngeen war a bëre décembre wala janvier wala novembre mën nga ko jël ndax looloo tax sax décembre daaw la am événement décembre daa daan am événement yu mag le cinq décembre ak le premier janvier daan am événement yu mag mais calcul année blanche bi moo waral loolu saison bi deux mois lay tëj ndax day fekkante euh, mais moom dem na États-Unis moom fa moom moom moom moom Siteu euh, mais ay combat bi cëpp ci ginnaawam la daan taxaw mais du moom rek euh, boo defee année blanche gënoo ñu ko daan def ndax programme bi suñu borom moo ko yor ndax toujours moo ko mën ngaa jàngale bëre encadré booy mais mënoo leen a tëgg boo gisul promoteur bu wax ak yow it wala ku la tëgg da ngay toog xaar say moroom ndax du yow rek a def année blanche. Mass Mbargane lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy euh, xam naa yeneen siidi dinañ ma mere. waa ndax fan yi bu ñu ma dékkee micro ma ne leen non du bañ a wax ak ñoom mais xam nga dama leen damaa saf sàpp ci euh, ci kii na foo wi ren mel ni di xamaatu bu ne la yow a da ngay tiit ndax làmb du lu ñuy mokkal waaw mais nag yéen damaa bokk ci yéen mënu lu ma leen bañal dara di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam di leen ñaanal kooru jàmm gis naa ne nag euh, chauffeur moom mi ngi nelaw xëy na koor gee ko jàpp <laughs> mais daal ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi ziar waa Leewtoo bi ngeen yee yàggul mais yéen a ngi bay seen waar leen ñaanal rek yàlla jàppale leen yokk leen ca kaw ca kanam ñu leen ñaan koor ak kooku jàmm ñu war ak jàmm war ak jàmm yàlla mën na ko yàlla ko def biram ñu ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf. yéen a ko déggandoo ñaan moom ami na ci tegu ñu ngi koy ñaanal jàmm moom itam di ko sàkk ci moom eh, di ko wax ni kenn la koo xam ne danañ lott ci wax ci moom dara mooy Max Margan dañ ko bàyyi ak yàlla rek ñaan yeggali yéene ji ci jàmm ak salaam ñu nuyu bu baax ki ne ci caméra bi di yàgg maar ñu koy jaajëfal di ko delloo eh, jaale li ñu bokk muy Cheikh Béthio Thioune di ko ñaanal yàlla yërëm ko taxaar ko ajana yi gën a kawe eh, soxna ay Aïcha fay ñoo ngi koy nuyu bu baax Rose la Fleur ñoo ngi koy nuyu di nuyu Momo hmm, mon professionnel ah sunu bos mbokki Leewtoo nii lañ leen di tàggatoo ba benn yoon jërë ngeen jëf.